asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax di leen seer di ñaanal jàmm si ajjuma ji ah di ko sàkku ci yéen bu ngeen ñu gisee fii ñu nekk nag li ko waral moom mooy eh, yaakaar naa ñaari mbir yi toog kenn du leen présenté muy Ndiam Terry bu kayaar ak Ahmed Deme bu Thiaroye yaakaar naa làmb moom kenn dootu leen ci laajte ndax liñ ci wone li ñu fi waral teewal indi tey nag moom mooy seen combat parce que nag bi mooy ñaareel yoon ñuy daje ki leen tëgg nag moom mooy waa Jandeer production te ki nga xam ne nii moom mooy ab euh, Ablaye Jaxate ah nekk si bokk Jandeer production ànd ak waa Jandeer ak dëkk yi ko wër yëpp ñoom ñu taxal seen structure Jandeer production events tëgg événement boo xam ne tamit événement làmb la ndax jamtëri Ahmed Dem comme ni ma ko waxee rek Boucar ñaari doomi tefes lañu ñaari doomi lébu lañu defe naa kon nag bu ñu dajee faw mu metti mais nag comme li may wax rek ne nañ doomi mbott ndox rayu waaye ndox mu tàng moom kay na ko moytu ñoom ñaar nag buñ ca yeggee xaw ma ku yor ndox mu tàng mi war koo xëpp moromam defe naa ñu ngi nii toog promoteur baa ngi nii toog mais damaa bëgg nag balaa maa dem sax si mbër yi ñu bàyyi promoteur bi mu njëkk a nuyoo ba pare quoi Ablaye ñu ngi lay ziar bu baax a baax di la ñaanal jàmm. salaamaaleykum ak wax ak sénégalais yi. salaamaaleykum salaamaaleykum ñu ngi nuyu adduna yëpp di nuyu Sénégal yëpp mhm. di nuyu ñi fi teew ñëpp presse en ligne bi di nuyu champion Ahmed Deme di nuyu Jam sargal bu baax di nuyu àdduna yëpp particulièrement waa jandeer tund jandeer di nuyu waa kayaar waa Karabu Ndoy waa mbaawaan njoxob ba ci kër Mousso bayax tund jandeer bi yëpp daal ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di leen bëggee lu bari di nuyu Sénégal yëpp di leen ziar bu baax a baax a baax di nuyu presse en ligne bi di leen jaajëfal seen teewaay yéen ñëpp ah nañu teewaay bu baax a baax di nuyu tamit ñi ma àndal ñëw fii ku ci mel ni Baye Mbaye Laye Alaaji Ndoy Pape Dieng Babacar Touré Mansour Gueye Moussa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen lu bare bëri di nuyu senegal yëpp daal. jërë ngeen am na solo mais bala ñu bàyyi rek pour ñu bala ñoo dem si mbër yi. combat bi ak Jande production tamit dafa juddu pour maanaam. sax fi di dëgg làmb wala dafa waaw Babacar Diender production dafa judd pour sax fi di tëgg làmb comme ni ko promoteur yëpp di defee noonu la Diender production ñëwee ci làmb parce que dañoo gis ni tund Diender waruñu waa Diender waruñu xoolee làmb di faraaf ndax ay champion yu mag ñi ngi tund jandeer ku ci mel ni Abdourahmane Ndiaye Falang xam nga kooku turam du fay ci làmb mbaje Dia Diop turam du fay ci làmb ak yeneen ñeneen ñeneen i mbër yu mag yu nekk ci tund jandeer yoo xam ne seen tur warul fay ci làmb kon jandeer turam toujours dafa war a développer ci làmb dafa war a gën a dem moo tax ñu ñëwaat nag pour jël xale yi nga xam ni ñoo nekk tund jandeer ak képp ku ci wërsëgam nekk ku mbër bu nekk Sénégal rek pour boole leen pour ñuy bëre dañ fi ñëw daal en tant que promoteur comme promoteur yëpp nekk nag promoteur bu ndaw

gannaaw ban sante yàlla julli si yonent bi ñu ngi gërëm suñu ñaari waajur di ñaanal nag suma yaay suma sëriñ yàlla na yàlla guddal faram sam pap fa mu tëdd yàlla na gënal fi mu jógee vraiment di am mbégte ah am contentement bu baax di nuyu tamit presse à ligne bi maa ngi leen di ziar assistance bi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp vraiment di nuyu promoteur bi Diender Production man damay bëgg lii parce que lii gox bu ne war nag ko am am promoteur boo xamante ni day ne si gox bi di tëggal ñi nga xamante ni mooy njabootam kon ñoo ngi lay féliciter di la encourager di la wax nag soo yoon yàlla na leer di dalal ki nga xamante ni mooy Diam Terry Diam Terry ñoo ngi lay wax bienvenue welcome nga dal ak jàmm bu jour baa ñu defal la bagage waaw vraiment am nañ mbégte ah di sama supporter yi vraiment ñëpp namm nan ma mais maa ngi ziar ñëpp di ziar waa Thiaroye sama waa caaro yi Géej vraiment am naa mbégte waaw ba nga laaj ma la leneen am na li ma lay laaj mooy dama gis da euh, première a à phase maanaam dañ leen jëkk présenté fii mhm. boobu daa mel affaire yi da ngeen xawoon a kii mais sànq dama gis ngeen xaw xëccu donc maanaam nga sa dënn xaw a jóg dënnam xaw a jóg ci ay affaires yoo xam ne solo la du ma sol xanaa combat bi a jege moo tax waaw xam nga côté yooyu la dem da ngay tere comme genre yi muy def nii laay tere hmm. di ma sol loo xam te ni moom waruma ko wax moom waruma solal dafa war a cemp cempam rek yaa ngi comprendre bon peut nag yére bi la ma doon wax solal ma ne ko du yaa koy solloo si loolu la doon discuter rek mais du dara sport la bu jeexee rek day jeex quoi bu ñu si tolloo nag bon faaw nu tàngal mooy li may faral li wax rek combat bi si man lay dépendre si wax ji mu neex si man lay dépendre si bëre bi mu neex ah. lii man maa la ko wax. kon moom amul lu muy dirigé ci combat bi. xanaa déggoo ma pour mu neex nii signature bi si man lay dépendre dépendre lu si moom. kon moom ma la bu jour baa tamit combat bi si man lay dépanner pour mu neex côté yooyu la nag damay bañ a wax. Mhm. ma la déggee nga xam ne sama waay yàgg naa jóge Kayar ñu indi indil ci yow lay dépendre. jëm téeri champion la ndaanaan la mais nag day daje ak ndaanaan mooy li may faral di wax rek combat bi combat gladiateur la ni ma gëmee ne du yomb moom na gëmee ne noonu du yomb bu yaakaar ne day yomb. non mooy nax boppam. mais pourtant sax dégg naa ko ci ay waxam moom li ko neex ci combat bi moom waaw li li mu bëgg ci biir géew bi. Ah, moom nga koy defal par kon kon kon kon li may wax ñëw na. combat gladiateur la ku xam gladiateur xam ku ne. non non amul recul quoi. gladiateur moom nii rek ku nar a reculer moom dangay ngay dee. Hmm. lii man maa la ko wax. Ameth Deme xam nga combat bi tam ku ko gañe ku maanaam fu ko war a yóbbu ci làmb. waaw xam nga man à chaque mooy li may wax rek. tey naga ni waroon naa fekk ma dem si kaw a kaw peut nag loolu la yàlla dogal mais saa yi may jël nag du ma jël combat boo xamante ni combat mbër mi dañ naan noono amet ak man wala nangam chaque jour dañ may xeeb mais incha allah saa yi ma ñëwee rek di def surprise te xam naa ne combat bi combat bu baax la combat bu ma respecté la combat bu ma fonk la te incha allah bu ma ko daanee dana xam fu ma jëm waaw. ak li mu fi defal teg jët bu yàggul bu rafet moom xam nga ñu ne mag lañ comme li ñuy faral di wax. làmb bu doon kaamil la mën na noo wax ne ñun wàcc nañ kaamil bi yëpp kon donc amul benn mbër buy taxaw non bu ñuy jaaxal si wàllu bëre wala si wàllu leneen ak leneen non non non. kon daal Diam Terry moom. champion la nag ndaanaan la nangul naa ko lépp lim doon mais nag na xam ne am na combat bu rëy a rëy. am na yàlla na si yàlla yóbbu ak jàmm ak salaam. waaw gars yi ñuy wax foofu si ginnaaw s'il vous plaît waay jàpp leen ci te yàlla rek tax. Aliou Fallou. nuyu na waa Sénégal ñëpp a ngi lay seetaan ba pare nga wax ak Ahmed dégg nga li mu yàlla bu baax a baax a baax a baax di nuyu ñu fi teew ñëpp ñëpp ñëpp di nuyu waa Jodé production bi ñu fi woo di nuyu journalistes yi fi ñëw ñëpp di nuyu Baye sama grand Baye Baye Laay di nuyu ñoom Gora ak ñoom Mor Passé yëpp bàyyiwuñ kenn daal. di nuyu waa Jëndeer waa Touba gi ma dëkk ak waa Jëndeer gi ma dëkk waa Kajoor Mbaakool gi yëpp di nuyu sama mbokk Casamance di nuyu waa Guinée Bissau ba ma dégg gi may dem maa ngi dégg bu baax a baax a baax. waaw di nuyu sama adversaire Ahmed Dem di ko nuyu di ko ziar bu baax a baax a baax képp kuy bëgg Jam Terre rek maa lay ziar bu wér di nuy sama papa sama yaay bu baax père maa lay nuyu bu baax a baax a baax. di la wax nag sa mbokku paa yi ne foofu yëpp maa leen bëggee bu baax am naa combat leen bëggee bu baax nag. am nga waaw. am nga combat adversaire bi nga am xam nga ko yaakaar mais dégg nga sax li mu wax Ameth naa li mu moom yaa ci sa ay. wax jërë muy sori. Hmm. man dama mbër boo xam ne dama ñëw ci géew nga may manipulé naan ya lu la neex yaay def man du ma saaru mbër yooyu samay wax néew trop nag. say waaw mais sama jëf bari na trop. te li may wax yéen journal yi ma gën a xam ku mën a génne combat jam teeri bu ñuy diriger jam teeri di ko def loolu lu ko neex kan ma a génne si yéen ñi amul kenn dama diriger am dem bu nee damay diriger lamb ji bu neexalee mooy neex man lii moo koy def dafa juum dafa juum de dafa juum hmm. moom moom mii boo xam da ngay yus lamb di ko manipulé naan yaay neexal yaay fecc mu neex yaay bëri mu neex déedéet am dem man boo bëree damay bëri soo bëriwul damay bëri man bëri la ma sant bëri loolu ma jàngal sant ñu ma taxaw di xaar ñu may manipuler man jàng sant jàngal ñu ma loolu yëpp mu la yëpp wax damay ñëw di koos koos jëmal maa ak yow mi diin niil ci làmb de ma si niil mosuma def ci làmb déedéet mosuma niil ci làmb xale bu ndaw la du ma niil ci làmb góobu entraînement ay weer ànd sama mbokk ñu ba dem saako yàq ñëw góobu ma loolu de li wax ne bu ko neexalee mu neex bu ko neexul mu neex bu taxawee bëre day neex bu taxawee xeex day neex. barki alxuraan bu taxawee bëre day neex bu taxawee man xam naa ne man du ma man man du xaw ma loolu jàngalul ma loolu ba ma jëy mooy sama grand ci làmb xaw ma arrière ni mel noonu laa mel xaw de. kon moom bu neexalee day neex bu neexul day neex déggoo wax bi de. loolu laa bëgg. xam nga ñun danoo mbapat ba tas man bi ma ñëw Dakar booba sama tuut jiitu na ma Dakar ndax mbapat dem drapeau Sélta fu la ma adduna bépp xamee bëre sans jàpp ngeem kon ñun bëre nu kenn du ñu ko jàngal ba pare ma tarbiyoo ko moom xam ko bu baax xam ko bu baax a baax làmb dox mi ba ma fekk ko ci kaw war a bëre moom kon yaafusuma su ma yaafusoon làmb du nu boole ba ma koy jël nganti combat lam wax na dëgg de nganti combat lam damaa toog ay at bëréewuma kun na jamteere bu sañ mbokk yéey combat mu yàqu moom ma sant ko bu baax ba mu ba mu jël ma li tax gars yi bàyyi ma fi nag moom da koy xam. dina ko xam moom dina ah. mu dóor ko mu daal. te yow nee nga doo arrière combat bi day dëggal mu de. ay xeex ay xeetal la laa day yel ay raloos laa day yel. da naan niveau bu ne. ñi dàq bëri ci làmb bi dama day ak ñoom bëre ñi dàq xeex dama day ak ñoom xeex. Bara bi ma koy jël. kaw si la mujj a kaaw sàppo jël si ko mooy sa premier commandant jël si ko bi ko jël ñëpp dañu da ngay xaru ma wécc torop ma fekk ko fi Dakar minipele ko duma ko daa ko jàpp ko daa même chose tonnerre ma ko jël même chose tonnerre dóor yi gis nga moom xam benn ku doomu kaaw wàcce kon détail dóor daal di man jooy beneen affaire la Ameth Deme day bëre day xeex moo la gën a xam loolu barke Serigne Touba day bëre day xeex day bëre day xeex man xaw ma lool dégg nga wax bi de man xaw ma lool de samay wax na bëriwul mais dafa am wax yu ma koy tontu c'est la fois gis mbër mu ni li li neex si lam maa koy def c'est la première fois moom mais na ko nag ni mu ko waxee na ko dëgale boppam noonu ah. waaw. du ma xam adversaire barke Serigne Touba Mbacke xamoo ma kon yow. barke Serigne Touba xamoo man du ma xam adversaire du ma xam maanaam man premier man première man du ma xam adversaire kuy ànd ma sax du xam adversaire Ameth dem du ma ko jël xalaatuma ko nekk ndaanaan ci làmb def lu ne ci làmb ba ma sawar a bëree moom di ko jël di ko di ko xeeb la loolu mooy yëpp samay mbokk Ameth Deme laa gën a respect samay combat yi ma jël hmm, ndax ndaanaan la. damaa xam ne même bu ma bëree pare ba ba daan ko pare dina am yeneen technique yu ma jëlee moom. dama bëgg a la waaw moo tax ma tontu ne la dama xeeb adversaire man ma xamee xam ne samay combat boo ko seetaanee. su ma xeebee xeeb musibaam. samay combat boo ko seetaanee. xam ne sama bëre dama ko teg ci yoon samay samay bëre man dama ko teg ci yoon dama ko teg ci fulla teg ko ci fayda teg ko ci jom teg ko ci ngor lu mu métti métti du ma sàqi du ma rikil kon man kooku du teg du xeeb adversaire te ki mu jël xam naa ko ndaanaan moo tax ma soog ma soog koo jël maanaam dama ko nangul ndaanaan moo tax ma soog koo jël Ahmed lan la Ahmed sa sa waay Ahmed doo wax kii non xam nga dama koy bañ a dog mu may freiné man loolu dama koy bañ ah. yaa ngi comprendre dama koy bàyyi mu wax rek comme de moo ngi wax. non yow lan yow lan yow lan euh, questionné nga wax ba pare ma déglu la. xanaa déggoo ma daa mel dama daa mel bi déggoo ma de. waaw signature bi pour mu neex si ma la dépendre daa mel ni déggoo de. déedéet. da nga may dégg da nga da ngay nangu. boo bëggee mu neex. non non. noonu lay demee nag si biir làmb de. déedéet déedéet. si man lay dépendre. li ma ko wax fii mooy moom moom laa koy waxaat si biir làmb ja. yow Amady yow Amady yow xam yow yow bu ah yow ay reetaan nga ko foog nii alxuraan reetaan laa ko foog xam nga sànq si biir wax li ma si gën a neex bi ma naan combat bi combat gladiateur la malheureusement dégg nga ma est-ce que xam nga lan mooy gladiateur xaw ma ko wax ma ko boo demee say mbokk nan la tàppee bind la gladiateur gladiateur du fi am film film gladiateur ñi nga xam te ni ñi groupe day taxaw nii groupe taxaw nii ku ne yor ay xeeg ku ne rerekile mooy da lay fàtt mooy combat bi ah. jam xam nga man benn affaire dafa benn affaire jaaxal. waaw yi bu di signature. waaw wax ji day neex am ah, mais yow jëm jëm kii kii yow. mais après. kii après après lamb lamb ah. lamb lamb da nga naan noonu du ci daal waxal yow ñun ñaata combat lañ bëre ba léegi yaa ngi wax ay saaxi ay reculé ay nangam 21 combat. waaw masunoo reculé nit. waaw masunoo saaxi. waaw boobu ba yaa ngi koy kan moo fi saaxi xanaa da nga ma saaxi. man li ma la wax yow laa koy laaj. combat bi mu neex la mu xari la day metti day neex. man ni ma ko gëmee gëm ko dégg ko ma ne la sa biir wax malheureusement ba nga ma déggee. xam nga loolu mooy lan li nga xam nga mooy mooy fekk la ngay daw ñu fëgg la ne ah, kay jeex na. yow yàgg na xam ni ba nga jëlee jëm teere ba nga tegee say mbokk jigéen ji ko toog neen la ki nga jël. combat bi xam nga combat bi. yow yàgg na xam bon déglu naa promoteur bi mu ne bii mooy seen seen dernière a xaw ma si man maanaam ñeneen ngeen choisiroon. waaw maam adversaire day dox waat si yow. ñeneen ngeen choisir bi mooy seen deuxième plan xaw ma seen troisième plan. yooyu yaa nekkoon plan B bi daal. waaw dañu wut feneen amuñu ñëw ci yow. kon da ngay làmb de làmb de làmb de làmb ci yow. voilà da ngeen a làmb nag ba daj. fii du yoon. Ah. dégg nga ma wala déggoo ma. bu fekkee làmb ji dimanche la tombé. bu fekkee bu fekkee làmb ji dimanche la tombé. incha allah yóbbu ak jàmm. bu lëndee ci kattanu yàlla bu ñu xëyee. bu ñu xëyee. bu ñu xëyee dinañ débat ci man. yàlla si yàlla ah dinañ débat si yow kay ni ma la def ni ma lay def. maanaam Sénégal dañ coow ci man dinañ yéemu ci di comme li leen tàmm ci man. ay xale bi li nga tàmm di wax ay xale bi. waaw dañ ko waxaat ay xale bi nekkatoo xale de ah, ah ay paa bi de. waaw nga xam nga gars yi danoo neex. bi ngay bëri bi ngay bëri indo indo trois yaa ma eh, jiitu si làmb yaa ma nangam. bii bëri li leen mage bëriwul peut-être da nga leen di. maanaam bi su ma jamono bi wax bi su ma jamono moom bi bi bi su ma jamono top seen. maa ngi ma faram di jàng bëri. voilà kon kon donc. kon donc raw jàng bëri dégg nga xam ne te boobu moom mi ngi yëngal. moom moo ñu bëri non non attends attends bi may bëri super jamono man bañ naa ko ba dama am dama wàññi sama yaat am licence damaa yokk samay at pour am licence nekk lu tuuti li cax booy. teel a siiw mais nag anyway loolu amul problème man maa la mag ma mën naa laa jur. sama rakk li bi door ci yow la njëkk ci ci yow la njëkk a ñëw ci xanaa déggoo ma sama rakk sama rakk li bi door waa léegi ñu ngi dem Sénégal ci yow la waa léegi wuy ma xam naa la bu baax sama doom nga loolu du garaaw la waa léegi ku dàq bëri kan maa ko dàq bëri fuuf maa ko dàq bëri fuuf bëri bëri amee dem lan la song lan la am na leneen bëri ci làmb akam la yor ak so ak ak ak bu essayé par exemple di tax taxaw dër jël ma di ruy bëre yaa yaa am loo ma sóoree la lay bëri na ko teg da koo ñime xalaat da ko na ko teg du ma mbëri jël tànk nga xalaat de man man ngay waxal de man yaa am na lu muy sóor si man de man yàlla xam na ne xaw ma li nga mane waaw ah. li mu ma ne yàlla xam na ne maanaam wax sa mbaaxu waaye yàqul sa seytaanagu ma nag say combat dinaa bu ma demee nag à part d'aujourd'hui naa dem suivre say combat étape par étape pour ma xam mais yàlla xam na ne kii ba léegi nii concentré gu parce que danoo nekk si benn combat bu ñu intéressé muy Baye Mandione Baye Mandione numéro 2 février si la nekk ni loo tax man talagu ma ko li jëndeegu ma ko dañuy ñaan nag le 11 février yàlla na ko yàlla may ndam. barke champion la ndaanaan la si samay biir wax yëpp dama koy wax. dama kaa nangul ak champion dama kaa nangul ak ndaanaanam. neexuma bëri moom laa lay wax léegi nag à part d'aujourd'hui dinaa la seetaan pour xool li nga mën a xool li nga foore comme tey dem nga ba xool ne man damaa mën a tàng ak ban ak xaar ak ban maanaam riñaan ngay def songu xamoo ne yooyu yëpp am am xamoo ne yooyu yëpp am met bu 2011 la 2012 2023 bi. non loolu yooyu yëpp bàyyi naa ko ay joxe tànk beeg yooyu ñoom seen. Ah. non yooyu boo ma ko joxee ma yoroon. non yooyu bàyyi naa ko xam nga ñun léegi danoo jëm danoo jëm danoo jëm mag. léegi danoo jëm mag. loolu tax léegi dañuy nëbbal lépp. am na dem daañu métti tànk bi ñi koy ñi ñi koy ñi koy encadré buñ ko danaa ko sa tànk bi dee jëkk. bu ko tegee nga gudd. dara jeey alxuraan ñi koy indi si laam xam lu ñu koy wax ko teg comme tey conseil nga ma loolu du ko teg. waaw xam loolu de. loolu neex na te bu fàttee bu fàttee tànk daanu bi jël. comme te conseiller nga ma ne sama tànk ma ko tee nga yanu ma kon du ko teg. ñu doonoo jàng bëre xam nga moom bëre kaamil la ci yoon bu ko defee ma ne ñu doonoo jàng bëre jàmm yow xam naa ne dese nga. wallaahi um-, umpale nga ma tuuti. am na dem sama derrière combat yi seetaan nga bu baax. dama laa xam kan man Seydina ma xam-xam seetaan guma la. billahi ah, wallahi wa taala barki alxuraanu karim man du ma du ma jël mbër di topp ay vidéo di ko nag dinaa seetaan seen vidéo à xam nga man boobu léegi teg ne xamaguma ban ngay teg xamaguma jiital waaw bu ma demee nag dinaa commencé xool dinaa ko xool léegi neex na parce que am nga champion la ndaanaan la dama dafa mën a bëri macha allah te te xeexkat la day dëggal boppam man loolu dama koy bëgg si mbër waaw nekkaat ci ay allure fay na ñoom mu am financé bi ne dañuy def mais après depuis Farouz mu am blessure pour ko am na retard bu nga xamante ne ni wax na ko sax ci loolu heure bi doon na ko fekk feneen ci lamb combat bi am fu mu koy yóbbu te ma gis ni ma gis mu signature est ce que bu ko yóbboo combat mënul am na ci question boobu moom moo ko beneen bi ci côté jam te jam aussi gëj na ci lamb te ay lamb combat am jafe trop la benn dernière production bi yéen ëmb ko indi ko Dakar est-ce que moom waaw comme li nga wax bon suñu yoon yéex na bul ne xaw na yéex dafa yéex effectivement parce que tey euh, groupe bi nga xamante ni ñoom booy ñaa falan ne ñun falan waroon ne. Ah, ñoo bokk génération effectivement ah. mais nag yàlla mooy doxalin nit nii quoi ñun ay taalibe seex lan te gëm nañ yàlla bu baax a baax ndog-ndog bi am nii dañ koy sante yàlla suñu borom. comprendre nga dem jëm téere mi nag ne waroon naa fekk mu bokk si cinquante millions yi man nag ne waroon naa fekk ma bokk si quatre vingt millions yi mais lépp yàlla suñu borom mooy tracé noonu aw yoonam mais ñun man boo gëm naa ne bés bu yàlla ne waaw lépp day changé te incha allah combat bi man gëm naa ne si lay génn pour dem si kaw pour mën a dem lekk damaa war a lekk parce que li ma dese si làmb bëreetul mag laa ñii samay doom la est-ce donc ñun ñoo ñoo ngi liggéey bu baax si combat ñoo ngi travaillé déggoo li ma la nee naa retour de gladiateur non dara dootu si yomb incha allah. aja jàpp tontu. waaw am na indi ko Dakar jàpp mu ñëw xas-xas loolu bi tàll ko est-ce que jaadu mu li mu xas-xas loolu mu ñëw doon samay gannaaw doon sama lépp mais bu ma tëggee ba jox seen xaalis ba pare ñoom dañuy demal seen bopp ma demal sama bopp ah. su may ñëw dafa am lu may boot indaale ko muy jëndeer ñoom ñu boot jëndeer indaale ko ñoom ñuy defal seen seen seen journée pour mu réussir man may bëri jëndeer pour mu kenn am na dem li may xas man li may làmb li ma ciy waxee noonu lay bëree ah. man ma lay wax ne boo demee ba si kër ga toog séance man la jat ko maam moom bi may toog di wax bi ma bi barke alors dama doon nelaw dama jógee si entraînement sonn di nelaw ci signature bi nii léegi bii tax nelaw dama jógee yaa xippi bi ma xippee ni ko am nga ne dofoo mu ne ma ma koy Papa Liss mu ne ma ma ne ko doo mbër mu kenn di manipuler Papa mu ne ma ma ne ko jam la man maay bëree ma lépp combat ma daane maay ma de man maay jëli ji kon bi maxaar la ah? bu mu def dara maay jëli ji maxaar di ko wax bi de man la jam teere man maay jëli man la amul problème am na solo léegi nag euh, tuusil euh, ni tuuti s'il vous plaît góorandoo yi ñoom ñi nga xam ne xamuñu seen tur sax hmm. ñu ngi lay gunge daal eh, kii barka Seydunaa Muhammad bu ñëwee léegi ma daan ko déedéet déet billaahi wallaahi tallaahi boo ñëwee léegi ma daan ah, Seydunaa Muhammad laa la génnal ñëwal ngay wax di appaat ak a gonfale boo ñëwee léegi ma daan

waaw Babacar li ñuy waxaat Sénégal rek waaw mooy combat bi moom na ko Sénégal yëpp xaar xam ne maanaam ci lu baax la amul benn ruq bu set ndax lii ñaari mbër yi wane tey ku ko tardé stade tardé nga lu kenn mësul gis si àdduna xaw ma dañuy xeex. non dinañu xeex lan ngeen di indi gladiateur ay ay lan ngeen indi ay ay ay xaw ma flèche xaw ma nu mu demee ay xeej. les gladiateurs ñoom ñaar daal li ñu wane nii daal bu jour baa nañ ko appliqué ñoom ñëpp waaw. loolu la kon Sénégal ñu gis ni léegi nii lamb ju am solo taxaw na tey waaw léegi nag ñu ngi nuyu ñëpp di leen sant di beral nuyoo góorandoo yi waaw ñu ngi koy beral nuyoo Mor bu parcelle parce que ñoom ñooy suñu lépp daal ñooñu ëmb indi ñu si làmb xam nga dooleel ñu xamuñu ko à cent pour cent waaye lépp ñoom la waaye nit ñu yore kontaan nañ si bu baax a baax kontaan ci assistance bi yëpp particulièrement presse en bi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen bëggee ñoom ñëpp parce que lépp ñoom la lépp ñoom la ndax lii tey ji am fii bu yemoon ci ruq bii rek tey Sénégal duñ ko xam waaye ñu ngi leen di sant bu baax parce que ñoom lañ ci yaakaar pour ñu jàllaleel ñu ko fépp te lii moom ah lu jara seetaan si la waa Père Max suñu suñu paale ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm gis nga bi ñëwee fii bërki démb fekk ko fii dañ ko talal loxo rek xam nga mu ñëw wuy si ñu di sant manager As moom it ku jàpp ci mbir yi la yombalal ñu affaire yi ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko jaajëfal di jaajëfal nit ñu àndal ñëpp waaye sponsor yi ñu ngi woo ñëpp parce que lii mhm. waaw waaw waaw sponsor yi ñu ngi ci démarché bu baax a baax a baax te bari nañu ñu wuyu pour ànd ak ñun ci làmb ji euh, des na tuuti rek ñu am ñu bari ñu décroché parce que am na ñu ñu waxtaanal ñu bari wax dëgg yàlla yàlla na si yàlla def jàmm rek ak salaam xam nga matale lépp ba mu àgg fi mu war a àgg. datu combat bi la. datu combat bi la 23 juillet allah rabbi bu neexee yàlla. waaw ñu ngi nuyu ñëpp daal di ziar ñëpp di nuyu tund jandeer bi yëpp di nuyu samay famille bopp nag waa Njaxateen ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar. di nuyu gars yi ñu àndal yëpp di nuyu waa Kayar yëpp di leen sant di leen gërëm di sant Ahmed Dem bu baax a baax di sant jamteeri bu baax a baax a baax Babacar yow tam ñu ngi lay sant ah di sant Thier Thier moom tout le temps mi ngi ànd ak ñun. buñ ko woo rek ak grand Dembélé ñu koy sant jaajëf ñu ngi ziar ñëpp bu baax a baax leen bëggee lu bari bari di wax ni làmb ji daal ñi ngi ciy woo ñëpp bëgg nañ sax président de la république ñu loxo pour ñu dem parce que dañuy dooraa commencé door te moom moo jiite réew mi te tund jandeer loolu lii mu taxawal pour jeunesse bi te dañ ne état mooy gunge jeunesse jeunesse mooy gunge état kon président Macky Sall ñu ngi koy woo pour mu ñëw jàppale Diender production ndax ay ndaw la ñuy door nekk ci tund Diender bëgg a améliorer jeunes yi fa nekk pour ñu yëngu ci làmb bu baax a baax a baax bëgg nañ mu dundal tund Diender ci wàll sportu làmb ñu ngi nuyu ñëpp leen ziar leen bëggee lu bari di leen jaajëfal. jaajëf kontaan nañ bu baax a baax a baax. ñaari mbir ñu ah? euh, waaw maa ngi maa ngi remercier ñi ma àndal ah, muy Bomako. ak Baye Sall ak mbay délégué vraiment maa ngi am mbégte bu baax di oo nag waa Thiaré Géej yëpp leen wax nag nan préparé ñu waaj fan si club yi fan si vraiment am nan combat le 23 juillet incha allah rabi mhm. li ma si metti rek mooy lim sori mais nag sant yàlla sant yàlla kon donc maa ngi woo ñëpp la leen wax nu waaj di oo nag waa Lixaar waa Pambal Duñaan waa Tiwaawan waa Njaxate waa Seriflo vraiment di oo ñi nga xamante ni képp kuy jàppale Ameth Dème rek maa ngi lay woo Issa Marière Assane Talibé vraiment maa ngi woo ñëpp sama waa Ikri nag combat bi seen combat la bon ñoo ngi ciy liggéey nag ñoo ngi ciy travail mais nag combat bi seen combat la allah yàlla baax na bala di sant nag sunu ménagère As. maa moom ñoo bokk ménagère bi. Ah, xam naa ne dina am pelena mais nag ñoo ngi koy sant nag di ko wax rek garaawul quoi na na dal. <laughs> as am na problème mais ñu profité nuyu Ibou Laye ah Ibou Laye ba tamit doon na fa promoteur ah, taxawal na combat Youssou Ndour ak Mor Kankan loolu tamit na leer àcc jàmm tàggatoo. waaw ñu ngi ñu ngi woo suñu staff bi yëpp di leen sant bu baax a baax. Hmm. ñu sunu staff équipe bi yëpp ku ci mel ni ñaandoo yi dafa daay bu laa jël nuyoo bi yëpp ak sant bi di teg si loxoom. combat bi ñu si woo Moussa Maire Kayar di si woo Baye Mbaye Laye baax a baax di nga jàpp ci combat bi. bi dafa ñor de bu baax. combat bi combat bu du combat jamteer combat turu jandeer la na ci ñëpp jàpp di leen ci woo bu baax di ci woo sama xarit Bernard fu mu jàpp ci combat bi bu baax di ci woo képp kuy autorité nekk jandeer rek ñu ngi la ci woo bu baax di ci woo waa Touba woo waa Casamance waa Salikañe maa leen ci woo bu baax waa Gorom maa leen ci woo bu baax di ci woo waa Mbakon yëpp di bëggee ñëpp nag képp kuy bëgg jamteer rek maa lay woo ci combat bi bu ma jàpp ci combat bi di nuyu nag sama gars yi ma àndal ku ci mel ni Antoine Deri ma àndal si biir ak Seydou Falal ak sama sama sama sama sama Modou Faye maa leen di bu baax di leen ziar bu a baax sama fa nekk yëpp maa di béggee bu baax di leen ziar bu wér di leen wax yàlla baax na combat bi daal seen combat la yéen ñëpp jàppale baax a baax a baax ñëpp préparé ko ndax gi nee na moo man daf may duma bala suul si bala suul si ah góorandoo yi ñu ngi koy bëggee di nuyu Mor ah moom tamit Mor tamit lana fa promoteur mu mel ñoom yëpp ku ci ne am nga ay journée ah euh, xale ba Abou Niassé ak